tëngërëm lañ leen di wax sa su nek rek ñi fo site internet di buzz mtv Senegal bu leen fatte di abonné di buzz cloche de notification yi ngir dara bañ leen raw ci seen xibaar da leen ak jaamu mbokk internet yi fo di setan buzz mtv Senegal cant ak nalen ñen na leen ci top bi ngeen di topp seen bi sa su nek comme ñu leen koy waxe di leen jaajëfal bu baax ba nak ci si bi bu leen fatte di abonné di buzz cloche de notification bi tay aimé vidéo bi ñu ngi leen di ñaan ngeen di aimé vidéo yi lolu dina ci am solo te dina tax tamit contenu yi ñu duggal ngeen si mëna jot bu ngeen ngeen bësee cloche de notification bi moo ngi noonu ñëw nag si vidéo bu am am solo dañoo dikk si point de presse bi nga xam ne premier ministre Ousmane Sonko war na ko def gouvernement bi ñu daal di koy annoncé loolu nag jiital ñu bare bare jamono bi ñu féete si opposition bi waaye tamit mbiri Bougane Gueye Dany dinañ si ñëw ay jàngat yu ama am solo ay révélation yu pertinente point de presse bi nag lim mën a jur mooy que ne nag xam nañ ne dinañ wax Sénégal jamono bi fi mu toll élection législative yi yu ñu jëm nii naka la nar a demee waaye tamit ban taxawaay la si sénégalais yi war a am waaye tamit patriotes yi ban taxawaay lañ ci war a am ñenn ci opposition bi nag jamono bii it nañu lool te jaaxle ana lan la gouvernement bi war a déclarer. non c'est que euh, man lii bettu ma de parce que Bougane dafa rëy làng ba pare néew ay siis parce que moom. Euh, musta dem élection musta jàll parrainage moom wax jee fi ne rek mais moom xamul nu mu toll yaa ngi dégg donc li doon gën pour mu noppal boppam noppal ñeneen ñi mooy mu demal boppam comme ni Pape Djibril Fall defoon xam réellement lan ban poids la am ci Sénégal ban poids te loolu dafa am solo bon defu ko xam nga kon moom da jàpp da jàpp ne moom bon xam na boppam parce que ñi xam politique dëgg ñi xam politique di def météo politique. élection yi passé xam nañ ne Bougane ca zéro yi la parce que ñun leer nañu ñu voté wul Pastef loolu moom leer nañ donc ay militants am euh, leer na ma yeneen la ñuy voté te xam naa ne voté luñ Amadou Ba donc cela veut dire que da nga koy boole ci euh, zéro pour cent yeeg un pour cent yi foofu lay bokk voilà donc loolu moo donc man xamoon naa ne bu demee gars yi aussi gars yi duñ ko nangu di ko jox yenn yenn position yi mun ta nekk parce que Pape Djibril Fall même bu dee benn député la am au moins. dem na élection présidentielle mos na am benn député mais Bougane aussi duñ jékki-jékki di ko teg ay tête de loolu mënul nekk moom sax walool moo ko mën a xamal boppam comme demee ni nii na demal boppam ñu xam. Bougane Bougane Bougane xalaatu ko Bougane demal dem dem dem ci liste boppam xalaatu ko moo ko ko ray la yemale. Bougane moom dafa dafa dafa dafa yebaate rek mais xam na ne représenté wul dara ci réew mi Bougane yow mii sëñ bi bu ngeen sampoon liste mu samp nga samp liste ci Sénégal koy gagné. amul benn représentativité xam na ne tekkiwul dara ci politique maanaam na pour nag mu man di ŋàbb làmmiñam bi di wéy di wax lii lay def bañ a dem élection bañ a dem élection wala mu wut maanaam liste boo xamante ni mën na faa bootu comme nii mu def xëccoo buñ ñàkkee fayda ba def ko tête de liste buñ foree dara mu nekk député bu ko defee continuer maanaam nii yor làmmiñam bi amee askan bi quoi di wax loolu la ci jublu de mais moo la gën a xam ne bu gaan xalaatul di samp ndëndam moom dong dafa représenté dara amul benn représentativité moom loolu xam na ko sax xam na ko de Bougane moo la gën a xam boppam du demal boppam de loolu mooy xaroom dëkk bi balaa mu neex foog mu metti dëkk boo xam ne sa waay régime bi fi nekkoon saboote dëkk bi saboote genn wàllu xaalis bi ñuy sàcc lii ñuy détourné ko hmm? sa waay lu wal lu réew mi yëpp boo ñëwee fekk lépp pays xanaa déggoo Sonko ne la hmm? dégg dëgg dëkk bi dafa ruiné son ko wax la ko xaaral ba jeudi ma la jox rendez-vous gannaaw suba bu gouvernement bi genn wax tojaange yi ñu fi def sa gaay yi tojaange yi ñu fi def dëkk bi fu forcément mu metti forcément mu metti man motax man banque diaspora bi songo digé won ma yakum di gaay taxawal ko ko dëkk bo xane ay tojamaan rek ay tojamaan rek ay tojamaan toje toje toje ay ay 450 kilo d'or ñukoy ya def ci ab jet privé di ko saa dëkk bi yéen ñi supporté nguuru kii bi yéen waa ancien régime bi barki yàlla man xaw man xam xam ne di man de mu bokkoon ñoom gàcce na ma rey bi metti ci nguur gi même pas mois sax fekk ñu bi ba ko sàcc alal réew mi yobuko aw ko. benen bi li nga interpellation bi nga def ci point de presse bi premier ministre annoncé wa lolou yeen manam yeen du ngeen ci tit <laughs> ma dal yeen jaxal ko ma cey gone Casamance gi yàlla yalla ko yàlla dolli taw fexeel dolli ko jàmm te dolli ko ñëpp moom daal bu noppé gaay tit bu né day wax gaay tit waye nak wax deug yalla ñun dañu indi politique bu bees ñun politique bi ñu indi muy bees fofu lañ doré te lolou la continuer waxtaan ak askanu Sénégal ndax réew mi dañoo xam ne citoyens dëkk bi ñoo koy tabax kon dañuy ànd ak ñoom ci lépp lu ñuy def fu ñu toll tamit dañ ciy communiquer ak ñoom ñu xam lan moo fi nekk ak lan moo fi am réew mi bu fi ñaar fu ko nekkee sax wax dëgg yàlla ñu ku nekk la ci sa wàll ñu jox la ko nga jot ko ci. ñun politique boobu lañ indi de mais politique ba fi nekkoon dem tukki ñu may la maanaam ab état financier la ko sa dërëm demu ci nga ñëw facturer Sénégal yi def say tappale. maanaam ay à ah, hauteur de benn vraiment ay somme colossale yoo xam ne kenn xamu ko te fekk yow dañ la ko may dërëmu Sénégal di mu ci nga facture ko jël milliards yooyu damm say poste séddoo ak sa ñooñ son excellence rek li mu def bu yàggul yaakaar naa ne eh, exemple la ci bi mu demee siin li ñu ko jox bi mu ñëwee lépp daf ko leeral askan bi ñun foofu lañ jëmee réew mi de incha allahu rabbi waaye pas comme politique yi fi daan am ndax nag wax dëgg yàlla yéen fi ngeen ñuy conseillé ak li ngeen ñuy digal def ko duñ ko def ndax wax dëgg yàlla yéen li ngeen ñu doon wax mooy ñun duñ am dara duñ faloo kon nag wax dëgg yàlla bu ñu demee ba falu ngeen ñuy wax di ñu conseiller tamit déedéet ndax programme bi ñu askan bi wateele fal ñu ko boobu la ñuy déroulé ak lañ tàmbalee woon ba askan bi gëm ñu ci loolu la ñuy déroulé mais pas yeen maanaam yéen fi ngeen bëgg ñu teg fa suñ tànk ndax wax dëgg yàlla ah <laughs> ni ko olof di ndéeboo rek maanaam sot noonu moom war laa tegtal fi ngay jaar ndax boo moytut fiir la la fay tegal kon nag moom bu la pièce bi jàppee yow yaa daaneel sa bopp de te ñun wax dëgg yàlla loolu xalaatuñ ko. waaw doo léegi léegi vaar moom ngeen di opposé woo quoi léegi vaar mooy seen arme moo leen dese. non yéen nag man wax dëgg yàlla seen ni ngeen di opposé woo vraiment nag yéen yërëm naa leen quoi bu dee vaar ngeen di xalaat ci Seydina Sonko xam nga wax naa la ko sànq Pastef loolu mooy force am loolu la jugee ak askan bi Pastef ba mu dooree ba léegi loolu la waxtaan ak askanu Sénégal. nit ki nag dañ ne ku olof dane euh, ku wat bi ñu la xamee woon ñu jaawale la loolu nag Pastef xalaatu ko yéen da ngeen a bëgg ñu bàyyi loolu mais ñun loolu duñ ko bàyyi insha allahu rabbi continuer di waxtaan ak askan bi ak ci lu mu mën di doon nee naa leen ñun ñaar fukk sax buñ ko amoon dinañ ko wax askan bi ne leen ñaar fukk moo fi nekk ku nekk di nga ci li sa wàll da ko ci jot ku nekk la ci sa la ci sa mbir ñu jox la ko bokkatu politique bi fi daan amoon nga xam ne taf yëngal ak maanaam nax askan bi di annoncé ay chiffres yoo xam ne ne di refléter la vie quotidienne des sénégalais waa léegi kay yéen affaire kii euh, euh, maanaam li ngeen di bañ mu wax ci lu ngeen di bañ mu wax ci mais yaa xayti kay yéen li muy wax bu paree fekkee am ngeen argument wala la muy wax sénégalais yi moom kenn moomu leen kenn jëndu leen wala yéen a gën a jàpp ne yéen a gën a yeewu Sénégal yi koy déglu. léegi ñi ko bëgg a déglu dinañ ko bëgg dinañ ko déglu ñi ko bëgg a déglu am na droit bañ ko déglu li muy wax tamit ñi ko bëgg a gëm dinañ ko gëm ñi ko bëggut a gëm am na droit bañ ko gëm mais léegi pourquoi pas ngeen bëgg ne waru fee wax wala du fi wax wala lan moo tax muy wax day wax de dina wax incha allahu rabbi